parler bien sûr des cartes de la presse avec lépp dinañ ci waxtane ci kanam légui léegi incha allah Mariama euh, salam maa ngi nuyu Dès le nouveau, Seydou Nourou mang lay ziar bu baax baax également du nuyu ñi nga xamne ñom nga bokal euh, plateau euh, Mang seen ko melni euh, Ben Mokhtar mang ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu aussi professeur suñu doyen Mamadou Thior ak oustaz di nuyu aussi ki nga xamne Modi moo di Mounas di nuyu téléspectateurs yi nga xamne aussi ñi ñi bàyyi xel seen seen cœur voilà donc mi ngi non di am mbégte ci bokk li nga xamne Modi émission Salam bi Seydou Nourou. C'est un plaisir de t'avoir ce matin alors on va démarrer comme tous les jours la revue des titres bien sûr. Mm -hmm avec le soleil voilà le soleil a ñuy daal di euh, démarrer li nga xamné kon mom la yeglé kay daal di xëyee tey euh, ni nga ko waxé donc le soleil voilà donc mi ngi nonu euh bu baaxul ba tay ñu dem ci l' observateur rek donc bu ci ñëw ñu daal di tàmbale li nga xamné mom la yeglé kay daal di euh, xëyee ah. tey jii li ci gëna a bokku na ci li nga li nga xamné près de 90 milliards de francs CFA disponibles très bien moom le soleil daal di xëyee tey ci walu li nga xamante moy campagne de commercialisation de la l'arachide merci beaucoup loolu suñu ay confrères le soleil daal di xeye tay jii mu jëm ci walum njaayum gette gi euh, xam nga at bu ne dañuy nemmeeku lu jëm ci walum biccog mballo bo xam da fay am ci gette gi alors mu melni nak kon atum len gi lu toll ci euh, ñent juroom ñent ci milliards euh, ci suñu ay koppar nak jamono ji nak mi ngi daldi disponible voilà ci jëndum gette gi alors lool na nak suñu confrère Le Soleil daal di ñuy xam ne ni ci suba si waye yemuñ ci ndax daal ñi xibaar aussi lu jëm kon ci prévention des conflits ak l'appel du Sénégal à l'OIF ñu gis nak ci li nga xam Modi natalu euh, ki nga xam modi moo di Fall kii pour stopper Modou Lo euh, muy loo xam itam mën nañ ko seen ci li nga xam modi journal Le Soleil mmh. euh, mi nga xam nak daf ko daldi di niki tayji modlo nak ci fateli moom moo daal ki nga xam modi Ama balde di combat bi nga xam niki dimanche bi ñu genn donc ñu bari ñi ngi ko don baye xel alors lool nak mo gën feuss ci li nga xam moy la une du journal Le Soleil de ce matin alors bu baaxee dañu dellu ci benen xol ñu aussi voilà lan lañu daldi xeyé

nag ba futt lañ daal di uh, def ñom ñi nga xamni modi wa di waa CUEMS SAEMS ak uh, yenn uh, ñi nga xamni ño ñoo ci union des enseignants bu Sénégal donc oh. qui sont sur le pied de guerre lool moy à la une du journal Yor Yor mi nga xamni ne daal ko xam ni ki tay jii condamné à 10 jours ferme Falla Fleur donc aussi di ab activiste bo ba légui nak ñu tegoon ko loxo da melni nak jamono ji daal nañ koy tégg loxo mom Falla Fleur muy xibaar bo xamni itam suñu ay natango Yor Yor daal nañ ko fël ni ki daal nañ ko fësal kon qui est ci suba euh, ci li nga euh, euh, la une donc du quotidien Yor Yor. Mhm. voilà donc ba tey ñu jall ci benen ñu tibénen. ci benen journal rapidement sur Quotidien qui barre son à la une revoilà la crise loolu itam li nga daal loi ko euh, le Sud Quotidien journée morte du SAEMS du CUSEMS aujourd'hui euh, menace du ministre de l'éducation nationale grève du SAES voilà mon nekk li 5. alors le SAES maintient la pression sur les autorités la grève de la section SAES euh, diffère la reprise à l'UAM le mot d'ordre largement suivi à l'université Gaston Berger de Saint-Louis les syndicalistes pour un plan d'urgence à l'UADP voilà donc mu mel maire bi des ci li modi ah, syndicat yi ñoom dañuy sàkku ci gouvernement bu Sénégal ah, mu daal di respecté yenn ci ay accords yo xamné togon nañu ko waxtaanee boobaak tay ah, waye nak mu melni kon ba tey desee na ko motali waye ci leneen mo jëm nak ci ouverture université Cheikh Anta Diop bu Dakar nga xamné itam étudiant yi ña ngay ci ab grève bo xamné dañu bëgg ñom itam ñu daal di ubbi li nga xamné modi université yi mise en délibéré de la décision de la cour de justice de la CEDEAO sur l'affaire Sonko au 17 novembre 2023 le Sénégal retient son souffle euh, voilà donc Niki Fokifan fan ak juróom-ñaar xam ngeen dina nek bes bo ñu bari dinañ ko bayyi xel euh, ci histoire bu Sénégal ndax nak ci lañu wara addu jëmale euh, kon ci délibéré bi nga ñu koy xaar ci cour de justice de la CEDEAO ci affaire Ousmane Sonko mmh. bokku na ci dakk yiñ ko dakk li nga modi kon liñ ko génné sax ci liste électorale yi waaye itam li ñu liñu dané li nga xam modi Pastef loolu lepp dañ ko bolé won dëxëñ daal di koy dem clamer fi nga modi euh, euh, a dit di climat euh, social délétère donc voilà bien sûr le mot sort menace de descendre dans la rue la du journal Quotidien de ce matin rapidement Quotidien Source A lay nekk ki baax sont à la une Euh, mon un verdict euh, déterminant voilà jëm rek ci contentieux euh, bu cour suprême bi nga xamné dafa dox diganté état Ousmane ak Ousmane Sonko autour des fiches de parrainage na xam ngeen ne boobaak léegi ki nga xamné modi Ousmane Sonko nek nekkoon kon leader bu parti Pastef donc ba légui sini nii li nga xamné modi fiche de parrainage ni ma len ko waxee sank booba léegi nag ñoom ña clamé ci ay yenn ci juridiction ngir nak ñu daldi tek teg yoon ba ki nga xamné modi Ousmane Sonko moom mën jot li nga xamné

wax nekk mi ngi ci li nga modi euh, euh, source a ce matin et aussi agent judiciaire de l'État euh, jëm ci cour de justice de la CEDEAO également Sénat la Sénat n'a jamais donné donc injection à la direction générale des élections voilà donc l'ol aussi ñom la ñu dit di xëyee niki tay di muy le quotidien source a de ce matin voilà donc batai ñu jàll ci benen quotidien xol ni aussi ci lan la ñu di voilà donc Wolf quotidien ñom batai tey wax ci li nga euh, Ousmane Sonko exclusion de Sonko de la course à la présidentielle le pouvoir euh, donc euh, voilà joue la montre Nous, l'agent judiciaire de l'État ci ay kàddoom ngir daal di wax ci fond dossier bi nga Ousmane Sonko Gana bi nga première victoire bu Ousmane Sonko amone sen kaw ci tribunal bu Ziguinchor ñom daal di d'accord ni ki nga xamné Ousmane Sonko kon mun nañ ko dugalaat ci liste électorale yi ba léegi si la ca eh, jot eh, tegu modi di mu jël fiche de parrainage am qui kile di Ousmane Sonko eh, ba légui si nag jotagu ko loolooy nag mooy li nga xamné mom la wolf Quotidien dadi di également ouverture des universités les SAES en ordre de bataille mmh. le présentiel exigé dès ce mercredi à la page du journal à la page 4 voilà donc du journal wolf Quotidien renonciation au à un troisième mandat du président Macky Sall le rôle déterminant des renseignements français mmh. alors ñom ñoko dadi xamlé donc mmh. Seydou Nourou suñu confrères yi nga xamné ñoo di wa Wolf Quotidien nee nañ li tax ba Macky Sall renoncer wu ci li nga xamné mo jëm ci 3 troisième candidature mu melni euh, dafa am ab les waxul ndax dañoo euh, japp ni ñi nga xamné ñoo di renseignement français yi euh, dafa am part buñ ci jouer ba ki nga xamné ne di président Macky Sall daal di del ci ginnaaw ci li nga xamné ne moo di coowal troisième mandat lu ci mëntu doon ñom ñoo xey daaj koy xamlé tay ji hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye direction et syndicaliste à couteau tiré mu melni ni fi mu ne nii di tang ci secteur bu né bo laal waaw donc dafa daal di yëngu euh, ñu séntu aussi ki nga xamni batay mom moy modlo mooy yi nga xamni ne euh, sax waxtaan bu mu sekk ak suñu ay euh, confrère Walf Quotidien dal dinaay dik ci coppite bi nga xamni ni néméku nañ ko ci mom mu melni ak autrement ibado bi comme nit ñu bëri en tout cas nañ ko nemmeekuwee dal dina ci indi li nga xamni modi kon ay explication jëm aussi ci combat bi na la dox wala ñu japp ni dana dox digënté ak Boy Niang loolee lépp ci ay kàddu dal dina ko dexeñ ci page 12 du journal Walf Quotidien ce euh, matin. Euh, Merci beaucoup Ghana Wolf Quotidien ñu jàll ci euh, journal Les Échos donc l'assemblée administrative va se muet en cours d'appel. Voilà, euh, mhm. jëm ci examen voilà c'est du jëm ci examen du recours de l'agence judiciaire de l'État sur la décision euh, de réinscription d'Ousmane Sonko le 17 novembre euh, prochain donc le juge de la Cour suprême ne sera pas seulement juge du droit mais il sera juge des faits donc ci doxalinam nag kon dina saytu lépp loo xam ni dafa j'ai ci ay faits du yem kase ci joxe kon ay dogal waaye dina càmbar Il est loo xam dafa j'ai un ay yëngu-yëngu ba tax ki nga xam ne Ousmane Sonko ñu daal di koy

gën a fës euh, ci lu ñu mën a jàpp Seydou Nourou aussi ci li nga xam ni moom la les échos daal di xëyee ni ki tey suba si su baaxee ñu dem ci beneen euh, gannaaw les échos ñu dem ci euh, beneen journal Libération qui barre son à une deux arrestations au cœur de l'administration pénitentiaire bien sûr c'est l'affaire de la fuite de la lettre sur l'état de santé de Ousmane Sonko très bien mi ngi noonu tey ñi ci tegagum loxo Seydou Nourou bokk na ci l'inspecteur de l'administration pénitentiaire Ibrahima Sow mi nga xam ne jamono ji nag ñi ngi ko def garde à vue fi nga xam ni moo di DIC waaye itam directeur des affaires juridiques de la planification des

donc euh, yef yaa ngay xuus di dem jëm ci enquête bobé nga xamné ne procureur bi ci jëm bopom mo moo daal di autosaisiru ngir nak euh, kon xol euh, ane lan mo daal di waral li ni mel batay ci li nga xamné modi journal La Libération condamné encore à une peine déjà purgée Falla Fleur recouvre la liberté requête de Sonko la cour de justice de la CDAO se prononce le 17 novembre date de l'audience de la cour suprême suite au pourvoi de l'agent judiciaire de l'État ñu mëna gis nataal ki nga xamné modi moo Fleur sécurisation des aéroports du Sénégal euh, AIDB euh, SA ak euh, ñi nga voilà donc je vois pas bien en tout cas ñi ngi ci donc l'unité ci gën moi bëgg rek moo daal di cybercriminalité muy Lo xam ne Natango, journal La Libération et Sonom SA donc ancien Sénégal numérique donc nous ñoo daal euh, pour euh, cybercriminalité. voilà très bien euh, journal la libération. ñu ci la libération l'observateur voilà l'Observateur observateur ba tey dafa daal euh, kon euh, euh, xuus ci li nga xam mom la suñu naataango légui sank doon wax jëm ci walum fuite bu am ci document médical bu Sonko nee nañ deux gradés de l'administration pénitentiaire arrêté par la DIC L'inspecteur Idriss Idrissa Sow et l' adjudant Issa Ndione par leur téléphone jamono ji nak ñom lañu ñu loxo ci ciowal fuite document médical bu Ousmane Sonko également à la une du journal l'Observateur de ce matin entretien

leen pétrole beeg gaz moom ku guddul fan doo ko fekk. très bien ayca tribune. <laughs> Euh, tribune euh, Seydou Nourou dafa daal euh, wax jëm ci ab njut njaj électoral nenañ nañ njut njaj en tout cas électoral en téléchargement point d'interrogation en tout cas ab laj la boo xamné ñom ñoom daal nañ ko samp le président de la sénat rebif le président le bif voilà donc noné nak lañ ko daal di fësale ñoom tribune ñuy wax ni nak acte yi nga xamné régime bi jamono ji ñing koy tek dafa daal en tout cas dalul xel voilà ci ni nga xamné non la waré doxalé ci régime démocratique euh, ba tey régime bi euh, le régime est de plus en plus dans les dispositions de rouler l'opposition dans la farine pour pérenniser euh, son règne Euh, Bataille, muy kon doxalin bi nga xam ne dañ koy ñaawlu ñoom tribune muy mbaa sax yenn ci acte yoo xam ne nañ ni warul ak li nga xam ne moo di démocratie bu Sénégal régime bi du koy doxalee Lolé, nag lañ ci daal di fësal ci nu mu yaatoo yaatu ni ki tey suba si ñi nga xam ñoo di waa tribune jëm ci kon voilà lu ñu ni euh, ñoom ci seen xalaat ab njuuj njaaj électoral la donc c'est c'est une question bo xam en tout cas euh, dañ ko daal di samp di lacc batay natalu nataalu ci journal euh, La Tribune président collectif des producteurs explorateurs donc de la graine d'arachide nee il n'y a pas une réelle politique agricole au Sénégal maanaam Sénégal ba fu mu ne nii amul ben politique bo xamné da fay bàyyee xel li nga xamné mo jëm ci walum secteur d'agriculture bi ngir rek ñom ñu gën ci gëna mëna gis sen bop

Euh, ex parti Pastef dal nañ ko won yóbbu euh, ci sen loxo yi avocat ngi rek euh, ñi nga xam ñoo di ëttu attekaay bu mag ba mhm. voilà donc ñu dal ci mëna addu Seydou Nourou ayca ñu dal ci benen journal rapidement bla ñuy jéxal Vox Populi son kibaar son la in aib dafé donc qui rentre bredouille de la Sénat

Euh, donc donc, n'ayant pas retrouvé le président euh, de la Sénat, hein. il, y retourne aujourd'hui même, en attendant que la nouvelle équipe euh, donc s'installe, l'équipe sortante pour gérer les dossiers en cours. voilà, muy kon li nga moi, équipe Sénat bu bees bi kon mu mel sax installation Nambu Amé, donc liggéey ba goul ndax Lolé, sax itam déjà indi Jafé jafe bu ndaw ngi rek moom ki nga xam ne ayib dafe ci yaakaar gi a jël fiche de parrainage yi mu mën euh, C'est que le ministre de l'Intérieur a dit en commission à l'Assemblée euh, selon le mandataire de euh, Sonko Aïbdafe, Daffé Aïkadom Nimel. ay Cour de justice de la CDAO, le délibéré de l'affaire Sonko attendu le 17 novembre la constitution de Branco acceptée alors maître Larifou Momnak nag exclure le Sénégal debout dans sa demande de renvoi Lolé Vox Populi aussi kon secteur de l'éducation

doxalinam mbaa sax dafa war euh, génnee cravache bi ci li nga xamné modi euh, yenn ci syndicat yo xamné dañuy mbubboo turu syndicat te doonuñu ko euh, muy ay cadeau Moustapha Diakhaté à la une du journal Vox Populi donc de ce matin on va aller voir deux minutes pour lire l'essentiel rapidement avant ñu dem sport pour terminer mhm. deux minutes pour lire l'essentiel bien sûr de ce matin mhm. facturation abusive au port de Dakar mhm. Conakry en profite et signe avec Bamako ko. wala deux minutes ñogul non deux minutes gissaguma ko de. aïcha alors loolu. ban ban mo ci top toftalu. deux minutes pour lire l'essentiel après mhm. Vox Populi. Mhm. bien sûr euh, bon euh, c'est pas encore là kon ngeen jox ñu sport. Euh, voilà bés le jour donc voilà nous ñu xool ci lan la daal di euh, euh, nomination à l'ONEL et à la Sénat mmh. euh, donc histoire de récusation cher Awa Balafal, comme le général Abdoulaye Djeng sur les mouvements de soutien Moussa Fatou, également contesté puis réhabilité décision au général de la Sénat l'affaire Mindy, et donc voilà je pense c'est ndoulo hein comme celle des fiches de Sonko mmh. voilà l'ol moi, li nga suñu natango bés le jour là, aussi lu jëm ci walum crève euh, bi nga xamné némé ko nañ ko secteur de euh, l'éducation itam daal nañ ci euh, daal nañ ci dik bu baaxa baax ñuy xamné ni SAES daal dinay wo étudiants yi ci front commun retrait BP de Yaakaar Teranga Cosmos au contrôle bataille tey ci journal bi aussi ñu mëna gis li nga xamné mo jëm ci walum permanence de la séance quand disait IMF en 2011 c'est un indice de la stabilisation de nos statuts ci nataalam ki nga xamné ne di Ismaïla Major fal euh, donc muy ay xibaar yi nga xam mom la suñu ay natango bés bi le jour dal di xëyee euh, ni ki euh, tey ci dal luñ ci mëna a Seydou Nourou alors bu baaxé ba tey ñu dem ci beneen yëglekaay l'essentiel mhm. et puis on va terminer avec du sport rapidement très bien alors bu nous ñu euh, deux minutes pour lire l'essentiel. waaw ah, nous le sport hein. Mhm. donc nous ñu ñu dem ci sport avec Seydou Nourou. alors le euh, stade quotidien euh, Jackson explose Tottenham gis nga aussi loolu lañu à la une ci tey ci suba si Ligue en deuxième journée décalée derby Lebou, US Wakam di nga xam ne day ak nga FC Niki mardi alors City et Barça vise la qualification ce mardi revanche. AS Milan Paris Saint-Germain à saint euh, Siro euh, voilà loolu li nga Maudit la une du journal Stade de ce matin le championnat israélien à l'arrêt depuis octobre Abdoulaye Seck euh, une CAN déjà compromise aussi ñu mën a gis ki nga Jacob ak voilà ki nga xam ne Crépin l'association s'installe à Monaco titulaire en piston donc je pense que maa manque koy prononcé bu baax alors en tout cas loolu daal euh, journal l'Observateur le quotidien autant pour moi oh. ñom aussi daal nañ ko xey jëm ci li nga xamné ne jëm ci walum euh, avec lamb sous le lambe, bien sûr, pour terminer avec, bien sûr, euh, la une, les enseignements du succès de Modulo. Belle victoire contre Amabalde. Très bien. Gis na sax à la une, ñu gis aussi ki nga xam Modi euh, Modlo di euh, Modulo bien entouré, Ama esselé, parcelle derrière le roc, Pikine divisé, les entraînements dominent le mystique. Donc mi ngi noonu Modulo mi nga xam ni tey moom la def nga à la une du journal Sunu Lamb ci ay waxtaan mbaa sax lu jëm kon ci victoire bi nga xam ne am ko dimanche bi ñu daal di génne ak ki nga xamné ne Ama Baldé euh, voilà ñuy wax ni Parcelles Assainies ñom dañoo daal di dañ ci li doon ben say ngir daal di nekk ci ginnaaw euh, ki nga xamné ne mudlo di daal di koy euh, jappalé lolé lépp ñu gis ni ab doole la bo xamné mudlo dañ ko ko jagleel bu baaxa baax tax ne lu jëm kon ci wàllum positionnement ak wàllum stratégie ba sax combat bi nga xamné kon def nako ak ki nga xamné Ama Baldé ndam mujj ko ci daal di wuy si aussi lay bay ëmm par par voilà par bon en tout cas Seydou Nourou j'arrive pas à bien voir mais de toute façon façon daal ñi ngi ñi ngi xam ki nga xamné mod moo di lay bay daal dina indi ay cadeau euh, ci li nga xamné mo jëm kon euh, ba ci euh voilà modlo euh ak euh, kon ni ñu gisé ni yenn ci ay performance mi ngi gën di mhm. koy def néna c'est la bête noire des noirs voilà donc Boy Niang 2 va t stopper l'hémorragie point d'interrogation en tout cas moy lu ñu mëna a jàppandeegum ndax combat dina dox digënté ki nga xamné modlo ak Boy Niang fu mu ne nii loolu la ñëpp di laaj gannaaw bi nga xam ne moom Modou Lo daal nay daan champion bu Pikine di Ama Baldé ni ki dimanche bu ñu daal di génn alors Seydou Nour je pense que mooy li gën a fës ci euh, voilà quotidien yi li ñu daal di xëyee tey en tout cas merci beaucoup Mariama jërëjëf loolu la yéen a kaay xëyee on te souhaite de passer une très très bonne journée on te retrouve euh, demain inchallah Ah tiens, good day. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors, tout de suite, on va enchaîner, bien sûr. On va rester avec euh, l'actualité, euh, donc avec euh, deux points qu'on va développer rapidement avec euh, El